إلى الله ذلفى إن kum يحكم te alquran rek mo nek li nga xamni ne sallallahu alaihi wasallam neena yati yawmal qiyamati safian day ñew ëllëg yawmal qiyam di ram kon rek motax ñi xamne innal ataba fina wa fiikum ni'amun coono bi yëpp coono bi yiwla gannaaw loolu dañuy dalal délégation monsieur le maire ñi nga xam ne ñoom ñoo agsi sànq jóge ngab ak caameen di wax ne ñoo ngi rafetlu seen teewaay di leen wax dal leen ak jàmm bismillah ci dëkk bu ngeen miin waaye bismillah ci kër gu ngeen miin di leen wax ne kontaan nan lool ci teewaay bi donte duñ ci guddal suñ paree dinañ jox ki nga xam ne moom moo di moor mu dalal leen parce que ay ganam ngeen waaye bala ñëw jàll rek ku wax ndongo wax sëriñ wax wayjuru ndongo ndaxte ñoom ñu it bokk nañ ci nga xam ne ñoom ñoo waral bés bi parce que xam na ne suñu maam ma maam Fawade Wele di wayjuru Seydi Hadji Malick yaayu daara la woon suñu maam soxna jaara buso wayjur sëriñ Touba yaayu daara la woon ba tax sax ñu koy léebu naan soxna jaara su aayee ndongo yépp ay rakkaaju dañ garab yi tey jóoru waaye kenn du ca gaañu mu mel ni keneen ne nag noonu lan amee ay soxna jaara ak ay maam faa wàdd wele ci daara ji ay waajuri ndongo yoo xam ne guddeeg bëccëg ñi ngi ñëw ci daara ji di sonn di gëstu di ci def seen ñaq di ci def seen temps yëpp mel ni que ne ku lem di ngay juum mel ni que ne gis na sànq soxna bindu Diagne ak tiraanga yi fi indi ku mel ni ñoom soxna buri ñoom Assou mbay ba mbir mi commencé ba léegi kenn yokkatut men di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yal na yàlla barkeel seen njàngi doom ba ngeen ànd ëllëg yowmal xiyaam muy tari ngeen ànd dugg ci aljanna ya gën a kawe yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def kon su ko defee rek ci waajuri ndongo yooyu dañuy woo benn yaayu daara ki nga xam ne ñoom lañ jox seen kàddu mu jël seen kàddu su ko paree ñu jox ki nga xam ne mooy baayu daara yi su ko paree ñu jox nag délégation monsieur le maire moo dalal leen ñi jox monsieur le maire ki nga xam ne moo ko représenté mu jël kàddu gi su ko defee ñu konne ba ci kanam di leen wax rek ne nag li des moo dàq foofu li jàll kon rek ñi bokk teewlu ñun ñëpp incha allah. sama yaram dafa daw ci njaboot ji diine moo ma ñor. dinaa joxe nag yóbbante bu tuuti takk sama rakk min sama gannaaw sëriñ alxaaji ibrahima Thiam mu takk sama mag ba sëriñ alxaaji moxtaar Thiam alxaaji moxtaar Thiam moom it jël kàddu gi may wax te yàlla kese tax te seydina muhammad kese tax xol bu set ak yéene sëriñ alxaaji moxtaar Thiam tey sa rakk ñëw na fii fekk fi xaalallahu xaaral nga sóor benn baat ngay wax bu am yar bu am teggin jëm ko son excellence président Alxaaji Macky Sall ak première dame suñu yaay ji baax de soxna Marama fay Sall pour njumbag yi muy joxe ay ñam naka indi fii jox ko tout tant yi soxna Marama fay Sall boo seetaanee télévision bi ak portable yi sa doom sa xarit sa soppe Serigne Bassirou Ndiaye Daara Jolof yóbbante bi nag boo koy jox ànd ak jox ko sama mag sëriñ ak yi Moxtaar Caan boo ko ko joxee dina es si ndongo yii bu nga ko jox meetar yi bu nga ko jox kenn muy yu mel ni ceeb yu mel ni suukar yu mel ni diwlin yu mel ni ay yére yu mel ni ay dàll yu mel ni ay meew yaa ngi koy dafay ñëpp jox ko sëriñ ak yi Moxtaar Caan bu tegee ci loxoom dana si ndongo daari góor yi ndongo daari jigéen yii dina si mer dund te yaa ngi koy def soxna Marama Faye Sall ak sa borom kër gi baax bi ak Hadji Macky Sall Serigne El ji Mokhtar Thiam moom it bu ñëwee dina jaar si loxo mu le maire de la commune de Thiamène Pass ndax kër booy dugg jaaral sa bunt ba ñi ma waxe président El Hadji Macky Sall waxe ka première daam soxna Marama Faye Sall moom it ko wax ministre Samba Ndiobène Ka mu jox ay ñam. tout tante yi sama yaram dawna ma saga man nak mu new ibrahima tian mu new mu beuri dana tan ñaar fukki doomu adama yi yu ndaw yi jigen ak ñaar fukki góor ak jurom muy 50 personnes ibrahima ya may deug ku nek am ñaar fukki deureum te yàlla kesse moo tax ma def ko 25 personnes yi jigen 25 personnes yi góor bo genné am séddale leen ko 25 personnes yi jigen 25 personnes yu góor te yàlla kese tax ak Seydina Muhammad kese tax ak xol bu set melax dama leen a fonk démb te ñëwagut waaye iñaan baaxut soxot baaxut te yéen am ñeen ndey am ñeen bàyyi Serigne Alaaji Muxtaar Thiam bi ñeen tegoo si ginnaawam dégg ndigalam melax dina sensé wasalaam onsu bilaay mina seytaane rajim di nuyu kilifa yi fi tase yépp góor jigéen mag ak ndaw di wax warahmatullahi wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi ngi nuyu goor di nuyu jigen di ziaré eh, di ñaanal ñepp jamm di balu ak di bal ñepp ak. ci wër wu tedd wi ñu genn di ñaan yalla liñ ci jaamu yalla nako suñ borom nangu rek rek yin ci def yalla nañu ko suñ borom jéggal eh, wëlbatiku defal ñuko ay xéewal yu sax dàkk ci barké sayidina Muhammad ñi ngi jéggalu ci kàddu yi ñuy yëkkati nag dañ cee xaw a lott lool waaye dañuy def cant ak ngërëm jëmale ko ci waa daara ji jëmale ko ci sun rak ndax daara ji ku ne xam na ne lii duy caaxaan te alxuraan rek moo ko man ndax bu doon lu du alxuraan kon du deme nii waaye alxuraan rek moo ko man kon dañuy ñaan yàlla borom daara ji yàlla na ko yàlla gën a euh, may kàttan gën a wéral aw làmmiñam gën a yokk xam-xamam di wax ne li muy dugal ci ndongo yi yet yal na leen ko yàlla dugal ci seeni xel ten jëfe ko ñun daal ñun jigéen ñi dañuy sant di gërëm di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ànd ak wér ndax li may wax doom ku ne xam na ne yaay moo ci gën a sonn waaye noppalu nañ léegi ndax doom yi léegi yaay jotatu ci bay jotatu ci ñi ngi ci daara ji te ñu ngi ciy def liñ ci war a def ndax lii fi xale yi tari man mii taxaw mënuma koo tari kon dañuy sant borom daara ji di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla mottali fi mu bëgg a egg ci alxuraan yàlla na euh, euh, egg fu raw ci njortam ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu àq ñëpp yaayi daara yi leen waxoon ëpp na lii mais man maa lottu ci kanam kilifa yi maa ngi jéggalu ñëpp nag baal leen ñu àq baal nañ leen. ci dalal bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah usallimukum bi tahiyatil islaamiya wa naqulu salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak di jiital ci nuyoo bi suñu maam suñu xarit maam Thierno Thian nekkoon fi si suba nekk mag tax mu dem ba mujj gi mënatutu toog mu bàyyi ñu yëf yi ñu koy àggale di ko ñaanal wér ak fan wu gudd képp ku fi toog yàlla na ko na ko ñaanal lool maam Thierno Thian yàlla na fi yàgg te wér maam Thierno Thian na fi yàgg te lii lépp moom la yaakaar naa ci wàllu bàyyi daay euh, tey ci suba ba léegi ñun liñ dégg dal suñu xel vraiment suñuy doom nekk fi di jàng alxuraan di tari ak àddi sax yoo xam ji jàngoon nañ ko di ko tay vraiment loolu lu ñu lu la kàddu gi ngeen jox nag xanaa ak baaxe ak yaatal waaye li oustaz Ba waxoon ci suba doyoon na woon nañu géew comme nu ngeen koy waxee <laughs> li waxoon doyoon na sëkk yaakaar naa ñoom ñi nga xam ji ay oustaz la nekk fee suñu daara ji doy nañ ci seere aw saa woo xam ji danga nga kaa war a jàngal gone wax na ko sànq saa yu bi nga ñëwee di jàngal gone gi fekk gone gi mën na koo jàng mokkal na ko mën na koo bind wax dëgg yàlla loolu doy na loolu comme doy daaru doy te yàlla def daf na natoo ñu nekk ay jàngalekat jàngalekat ku yor doom ñetti fan rek ñetti fan laa wax de ñetti fan xam na ba xam jëlee na fa wala jëlee wu fa sàkkantuma nag ñoom ñu def luy bëgg a jege ñetti at waaw li may wax yaakaar naa saas xam na ci lu bari kon loolu lépp di aw aw yiw rek vraiment ñu ciy kontaan bu baax wax ji nag du du gudd ndax toogaay bi xaw naa yàgg te am na ñeneen ñu war a wax xanaa di nuyu rek euh, oustaz asatis yi fi nekk yëpp di nuyu imaam yi fi toog di nuyu invité yi di nuyu yaay daara yi ak euh, ñi nga xam ñooy seen ak papa yi ak euh, suñu doom yi toog yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ma saw coono yi wax dëgg yàlla mbés bi amuñ lu ko gën te ñu ngi koy safoo vraiment diko ko rafetlu fu ñu toll di ñaan yalla yàlla na yokk maam Thierno niseur bi mu niseur ta tay suba mu wax ko fi ci kanam nit ñëpp yalla ko yalla àggaleeg jàmm yàlla na fu fu fu weesu en tout cas ñun wax dëgg yalla fi nekk nga xam ñing fay yëngatu wala ay ñi nekk ak képp ku ci am relation. mën a xëcc indi wala nga mën a wax wala nga am loo ci mën a def incha allah dañ ci xaw suñu tànk tubé loolu maa ngi leen koy seedeel fii xanaa di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla naa jataay bi nekk jataay yu donc comme ni ma wax rek euh, du ma ko guddal yaakaar naa ustaas yi moom bu tee lu ñu waa wax wala lu ñu waa waayaate wala lu ñu waa jàng la ñoom ñu ngi fi toog bu suba ba léegi ñu ngi ci kon lii dafa mëntoon a ñàkk rek ngeen yaatal jox ñu ko Ah, kun jox lépp nag da nga jël lu yomb rek li ci des nga dolloo ko gars yi baax leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu bokki jullit yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bu ànd ak orma di leen sant di leen gërëm di yëkkati kàddu nag ci ndigal ñiy commencé suñuy kàddu ci dalal suñ gan yu tedd yi nga xam ne ñoo fi egsi léegi muy délégation monsieur le maire de la commune de Thiamène Pass monsieur Moussa Ndiaye ki nga xam ne mooy son adjoint di Malle Thiam ñëw ànd ak délégation bu mag ñi gën ci ràññee rakkam sàmba Ndiaye ak moor Ndiaye ak xaritam Dame Dieye ñu ngi leen di dalal fii comme ni ko Mamor waxee ñëw ngeen si dëkk bu ngeen miin mais également ñëw ngeen ci kër gu ngeen miin mais également ñëw ngeen aussi si jataay yu ngeen miin donc ñu ngi leen di dalal di leen jox seen wàccuwaay di leen xoolee bëtu monsieur le maire de la commune de Thiamène Pass mbokk yi nee naa leen kàddu yi kàddu yi cant rek lay doon ah yoo xam ne ni tey ustaas yi tey ak njabootu cerno tey ñoo ma ko yónnee ne naa ko jotal askan wi ndax wax dëgg yàlla am seen xol sedd na guy cant gi nag ñi ngi koy commencé ci sunu jur ki nga xam ne mooy maam cerno Thian lii lépp su amee moom la yaakaar naa historique gu daara ji li sabab daara ji ak li ko wundu lépp képp ku toogoon fii ci suba moom jàllale na ko wax na ko dégg nga ko donc du jar ñu si dellusiwaat donc loolu day wane rek ne lii lépp su amee moom la ak njabootam ñi ngi koy sant sant goo xam ni am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem fa tabaarakallaahu ñu ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla gën a dëgëral yàlla yàlla gën a fekk aw fanam mu gunge ñi ba ca kanam a kanam a ah le ministre maire de Daara muy sàmm Ndiobène Ka moom tamit Alaaji Bass wax nga ko sànq waaye def na ci bis bi macha allah wax dëgg yàlla lépp li fiy teraanga rek mën naa wax ne tey moo ko def kon kooku amee lañ ko sant ak ngërëm defu ko ngir politique waaye daf koo def ngir dafa bokk ak ñun bokk ci dëkk bi di suñu doomu baay donc ñi ngi lay yóbbante ay kàddu yu cant ak ngërëm di ko yóbbante monsieur le maire. ngeen jotale ñu ko le ministre ne ko yobante bi jot nañ ci sant nañ ko gërem nañ ko ñing kay ñaanal yalla na yalla yàlla ah buñu ñu le ministre Samba Ndiobène dinañ sant aussi le maire de la commune de Thiamène Pass muy Moussa Ndiaye koo xamne ni kenn la ci man sam papa wax na ma ci suba na ma santal mako dong donc bu mbolo mi teewee ay ndawam teew aussi danañ ko sant bu baax gërem ko ndax daara ji yag na ci def kon monsieur le maire de la commune de Thiamène Pass Moussa Ndiaye góor gi sant na ko asatis yi nekk ci daara ji sant nañ ko njabootu na aussi sant nañ ko bu baax macha allah ngeen eggale ko ko waaye suñu santee le maire Moussa Ndiaye dinañ sant aussi kenn ci ñun koo xam ne nii sama nijaay Bas Ndiaye wax na ko sànq mooy carte d'identité melax muy alaaji Maxtaar Thian gàcce ngàllaama ñi ngi koy sant di ko gërëm ci kër gi la bokk jarbaat la fi doom la fi wax dëgg yàlla moom tamit jàpp na ci bis bi ak nam ca war a jàppee suñu amee réussite bu mel nii moom tax ñu koy sant di ko gërëm ah suñu santee Makhtar Thian di sant aussi rakkam di sama xarit di Mansour Thian wax dëgg fa yàlla moom tamit jàpp na ci bis bi def na la war a def macha allah ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla yokk waaye su ma jógee ci Mansour aussi du ma mën a sant ki nga xam ne tey mooy imam Babacar Thian Mamor wax na ko ci suba bis bi tey su amee dayo bi toll fii. wallahi lazim yàlla ak moom moo tax bañ ko commencé ba tey nësër ko ba tey ci wàllu wax ci wàllu tànk ci wàllu poos fu ñu ca dem ñun moom moo ànd ba tey bu ñu amee réussite tey ci bis bii mu toll nii yàlla ak moom a tax baaba gàcce ngàllaama ñu ngi lay sant njabootu na ñu ngi lay sant di la sagoo macha allah yàlla la yàlla yokk wax dëgg yàlla sa taxawaay rafet na macha allah ñu ngi sant ah suñuy papa yëpp nag ki nga xam ne tey moo leen fi teewal di suñu papa Cheikh Niang Thian moom tamit depuis ci suba wax dëgg yàlla mi ngi fi ñu koy xoolee wa suñu papa di ko xoolee bay gànkal ak bay baabu ñoom ñëpp ñu ngi lay sant di la gërëm tabaarakallaahu macha allah. ah naka noonu Mamor wax na ko sànq oustaz Medoune Thian mënul koo ñàkk sant parce que moom tamit wax dëgg yàlla am ku daara ji saf la ku safoo daara ji la ndax wax dëgg yàlla wax na ko xeetu basa yu xale yi di lal di jàng yépp moom moo ko fi def kooku mënul koo ñàkk sant balaa mbool ndaje mee tasaaroo. ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ndax dafa am ay doomu aadama yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi di def bu baax te kenn xamu leen ñu ngi ne pat dañoo boolewul dara ak i wax donc ñu mel noonu aussi dañoo jar ñaanal dañoo jar sant Oustaz Medoune ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm waaye di sant aussi ki nga xam ne kenn la ci dëkk bi doomu dëkk bi la safoo dëkk bi lépp lu waa dëkk bi def rek ma ngi ca loxo ma ngi ca ma ngi cay teew yaakaar naa ci suba ba tey mi ngi fii muy Massamba Thiane mënuñ koo ñàkk sant aussi gërëm ko ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla jàppale bu ñu santee Masamba Thian ah dinañ sant aussi suñuy doomu baay suñuy doomu baay nag su ma ko waxee la ko commencé ca baabarankal mi nga xam ne mooy xalifa bi ba ci gën a suufee ah rawatin nag ki nga xam ne mooy Modou Mamor dafa maa jiitu sànq mooy suñu mag di kilifa waaye li may wax li gën a jafe ci àddina bi mooy maye xaalis yomb na maye kër yomb na maye oto yomb na mais maye daraja ak cër loolu moo jafe sama nijaay Basiir te Modou mii moom la def Modou soxlawul dara. lépp lu ñuy def ci biir kër gi ci biir famille bii danaan def leen rek lu ngeen def baax na te yàlla may na ko man lépp xam na liñ xam man na liñ man waaye dafa arrière nànk jiital ay rakkam rawatina isaamee ne leen lu ngeen def rek doy na ma fa tabarakalaaw Moodu ñu ngi lay xoolee Thierno ñu ngi lay sant di la gërëm sa taxawaay rafet na ci famille macha allah yàlla yàlla guddal sa fan ah suñu santee suñu doomu baay dinañ sant aussi ndawi melax la jeunesse man damaa kontaan oustaz yi dañoo kontaan Mamor dee na ma ko sànq ak Bada na gone koñ bi lii ngeen gis fi mu taxaw fi lépp ñoom ñoo ko taxawal depuis barki démb mën na nga ni yendalun fanaanalun su bis bi melee ni yàlla ak yéen a tax gis nan seen taxawaay kun tudd kun tuddul yàlla moo leen mën a fay yàlla leen yàlla fay. adina nag nii rek la ay nit dañuy bëggante ngir yàlla soppante ngir yàlla di jàppalante ngir yàlla gis nga valeur yooyu mooy li ñuy wax des valeurs intrinsèques suñ ko xasee ba incarner téyel ko suñu bopp. fu ñu bëgg dem danañ fa dem bu ñu añaanante bu ñu soxotante ku ci am bés na sa morom jóg jàppale ko def ci la war a def loolu mooy ànd macha allah taxaw ngeen fa ngeen war a taxaw sant nañ leen gërëm na leen ñi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla gën a dëgëral seen taxawaay ah organisateurs yi ñi nga xam ne aussi ñoo ko diriger su ma limee damay juum ñoom Malick Sylla tout le monde vraiment sant na leen gërëm na leen waa daayira Moustarchidine wala Moustarchidaty mention spéciale lu mel nii moom yéen ciy chef organiser mu jaar yoon dalee ko ci kilifa gën ak di sëriñ Moustapha ca lañ koy déparé boo wàcc ba ci ki gën a suufee fa law sant nañ leen gërëm nañ leen yàlla leen yàlla jàppale yàlla na ngeen réussir seen mission. ah naka noonu aussi dañuy sant soxna yi ci kër gi wax dëgg yàlla ñoom tamit lépp lu ñu xewlee ñu summeeku la ko dagee ci jëmbu sàll mi gën a ñàkk solo ba ci kër gën a ndaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak jigéeni dëkk beeg jigéen koñ bi yépp ñepp ñew nañ japp ci bis bi tabarakallah sant nañ leen gëreem nañ leen ah naka nonu duma ma ñi nga xamne ñoy ñooy ndonga yi di jàngee fii ci daara ji wax dëgg yàlla am ñoom tamit bu jataay bi rafetee nii bu ndongo yi soloo nii bu tari mi neexee nii ñoom la ndax ñoom ñoo gën li gën a jël li gën a ci ñoom muy doom ñi dénkaane ko donc ki gën a jël ki jël li gën a fort ci yow nga dénkaane ko kooku deselatu la dara donc mention espécial yaayu daara yi ak yaayu ndongo yi ak bàyyi ndongo yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm suñ mbokk waa daara yi waa lumbal daara wax dëgg yàlla kenn desul la ka ci ñoom Cheikh Gassama kulim da juum yaayam ñëw na ak soxnaam ay doomam ñoom ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen seen taxawaay rafet na macha allah ah di sant di gërëm dëkk yi nga xam ne tey ñoo ñu wër. li ko daggee suñuy mbokk ndaama yi nga xam ne du ma ne wax sax ndaama ak melax du ñaari dëkk benn dëkk la léegi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay di gërëm suñu mbokk gang yi ñëw nañ macha allah li kat dëgg sama yaay maram Ndiaye mi ngi ne lay toog ànd ak waa kër gi ñoom ñëpp kenn desul waaye di sant waa mbusoobe ñi nga xam ne ñoom dañoo jël bada rek seddoo ko lu bada nekk ñang ca lu bada nekkut nekkuñu ca ñi dem ba ñun fami bada ñu xam loolu kon waa mbusoobe amee na leen sant amee na leen gërëm waa njama waa njama léegi damay wax na ñoom ci suñu famille la ñu bokk ñoom tamit lu xew ñu jóg ñëw nañ ak délégation bu am doole la ka dëggee ci suñu maam Mamadou sa Ndiaye ba ca këj gën tuuti ñu ngi leen di sant di leen gërëm moom i taxawaayam rafet na def na bu baax ci bis bi ñi ngi sant suñ mbokku Daaru Salaam melax yi aussi ñëw nañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm wax dëgg fa yàlla am kulim di ngay juum waaye dëkk yi wër waraan yépp kenn ku nekk ñëw nga ku ne def nga ci sa doole donc ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waa Lumbal kaw mënuma leen a fàtte ñooy ñu suñ bopp lañ wax dëgg yàlla am ñoom tamit teew nañ ak la manière ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye du ma ñàkk sant aussi ñi nga xam ne tey mooy organe de presse bi tey muy UD TV ñoom bàyyi xamante nañ bu baax ñoom siidi ba ca Maodo Thiam wax dëgg yàlla am amee nañ leen cant ak ngërëm à chaque fois suñ lépp lu ngeen jàppoon da ngeen ko bàyyi ñëw wii suñu defal ñu ay prestations yu jaar yoon donc UD TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal aussi seen organe bi yàlla gën a kawe fu wees seen njort laaw macha allah mbokk yi li duuf ci cin li xëjut ci nag wi te tare bi dafa war a continuer waaye daal mu gàtt mu gudd ngeen xam ne tey ñun njabootu noo kontaan nañ bu baax a baax a baax tabaaraka macha allah ñu ngi leen di ñaanal alaaji baaba encore une fois kontaan bu baax a baax macha allah yàlla la yàlla fay. sama nijaay mun ñang seen waaye daf li ñuy wax am na ñoo xam ni boo geesoo gis la seen ginnaaw gis la gis leen sa ginnaaw da ngay ñeme te loolu moo ñu dal ci yéen donc sant nañ leen maam Ndiaye vraiment taxawaay rafet na sant na leen gërëm na leen yàlla mi nga xam ne mooy yokk yàlla leen yàlla yokk bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi maa ngi guddal dañoo war a kon continuer tari bi aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بك جلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيوغي نيو نيب دي زيارة نيب دي بالو حق نيب دي جيغلو نيب تي لي نيو داغ بروغرام بي دي واخرني امام بابا نيغي لي نيو di nuyu chef de village bi suñu nañaay mbay caan mu jottale ci mboolem waa melax kàddu yi du gudd li ñuy wax rek mooy sant yàlla bu baax a baax bi mu ñu mayee ñu fekke lii ndaxte képp koo xam ne danga war a uti xam-xam danga koy commencé ci ndaw pour nga mën a am xam-xam arab ba dafa wax ne al ilmu fi sigari ka naxsi fil xajari borom xam-xam boko beugé dañ koy bind ci mol bu toy brik bu bu toy nga bind ko bu xasse aw sifini moy xale yi lu rek duggu ci sen bop jeexna benen ba ñëw ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin moy ñaari ñi ñu góor ak jigen ñoy nekk magi ndaw ñoy mekk magi ëlëk kon yalla yàlla jàppale len di sante oustaz yi nga xamne ñoo génne melax ci situation bi difficile parce que buñ fi nekkutoon daa ñu sonn te am xam-xam parce que yonent bi boo ko digle utlubul ilmi walaw bi chiin kon ñoom bu ñu toogee melax di jox waax melam xam-xam jërë ngeen jëf ñu leen jox nuyoo ci kàddu monsieur le maire de la commune de Thiamène Pass parce que moo fi waroon a teew waaye xat-xat ak jafe-jafe parce que ñun bi ñu xëyee ba léegi tooguñu moo xam na ne ci ay yitte lañ nekkoon moo tax ñu door fee ak si léegi di leen jéggalu ci guddee gi di leen jéggalu ci programme yu dog parce que waxtaan wi tari gone lañ gën a gën a mën a déglu ci samay kàddu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل الله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم قافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الصعير يرجعون حبس الله أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى أما من استحنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى aka wa amma man jaaka yas'a wa huwa yahsa fa anta anhu tadahha kalla innaha tazkira faman saa adzakara fi sufim mukarramah marfu'atin mutahharah بأيدي صفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن قال رسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لك

قلوبهم فهم لا eh, ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen balu aq te di leen baal aq di leen ñaanal jàmm ak salaam ak sutura mu mel ni dog nañ ko waaye dañoo bëgg xale bu bu wàcc léegi soxna Roqaya laa ko tuddee muy sama sama aawo waaye liñ bëggoon nag ci alxuraan wax dëgg yàlla ñu ngi koy gis waaye dañoo bëgg nit ñi ngeen xippi seen bët yi xoole alxuraan yëmut dara alxuraan yëmut ak dara kon ngeen xippi seen bët yi xool jàpp ko ak fukki loxo yal na yàlla dolli leen seen sutura yéen ñëpp badami nii rekk lay mën a mel su fekkee ne woon ñoom ñëpp dañoo ànd am fu ñu jëm bada li mu bëgg a def maanaam lii nga xam ne moom la maamam defoon bara du ko mën a def amul kenn ci ñoom ku koy mën a def maamam bam demee ba ñëwee bam mu taree danoo yëkkati soxna jox ko yëkkati taalibe jox ko maamam ku mas génn moo la jëli ku mas a rafle moo la wutal mbubu ku mas a de léegi mënu ko am feneen ci beneen mi ak beneen yoon lu dul alxuraan alxuraan rek la mën a dimbalee nit ñi muy lii mu def nii kon Bada jërëjëf yaa ngi jaar ci yoon wi yal na yàlla yeggale lu fi waay mën a xool lu ne lu dul alxuraan nax nga sa bopp ndax alxuraan ay lépp kon yal na nu yàlla jàppale bañ xam alxuraan te gis ngeen concours yi nuy wax ñu di ko def fii lañu jaar ku ne xam ne ne concours yii jàll Sénégal di ko doon def gis ngeen ko ki jiitu am na 20 millions. paasu bi biya Makka ki ci topp am na 15 millions ak biya Makka te xale yii rek la ki ci topp ñaari exco la kenn ku ne am nga 9 millions ñii kenn ku ne am nga 6 millions loolu nag moo ñëw ci suñu dëkk bii tey kon yàlla na yàlla jàppale ñun ñëpp ki nga xam ne moo demoon génn bitim réew juróom benn fukki réew ak ñett moom juróom fukki réew ak ñett moo jël deuxième Cheikh Cheikh Dia moo jël deuxième juróom benn fukki réew ak ñett ma ne la Sadio Mané def la Cheikh jaar def moo ko ëpp doole fuuf ndax juróom benn fukki réew ak ñett la woon Cheikh Dia jël deuxième dëkk fii kon kay jeex na ñun kay waa melax ñun tardé tuñ gis nga yoon wii la ñuy jaar boo ëllëgee ku posé ñu posé ku dugal ñu dugal kon ba góor góorgóorlul su ëllëgee dana la jàppale ci lii ci alquran lañ ci mën danañ ko ci def tànnal ci xale yi boo ëllëgee bu lii amee nga dugal comme ñëpp yal na nu yàlla jàppale wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu barakallah qul man yarzuqukum min samawati wal ard qulillah wa inna فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين سبح يبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله

viva. أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون la ko sadurat وهو على كل شيء حدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بشير والسلام syamsi wa duhaha wal kamari iza wan Wassalamualaikum 啊哈。 na ngir dem ak suñu mam bërëdo yi wér na gàmmu yi na maam na wena gàmmu gi weet na maam Cerno weet na waa melax weet na alquran jooy na xilaas bi jooy na kenn weet na tijaani weet nan waa seen waa mbokk mi lay jooy sama soppe sama xarit sama sering, sama turno, malam lam ma tàgge waa sëriñ Sanggup bépp mindef? sallallahu alaihi wasallam. sallam tiada yadakum bi sama qad asartumu minas saduri adughanan ladaikum kajamrati seni loko para lizana ndax lu ñaaw li ngeen jël jëmale ko si yonente bi 比。 safa'atuhu turja hodan yauma rahbati saan seen naa ñu bari génne ay rongañ waaye nag jar na ko ndax ki dem moo toll noonu ah, oustaz Mamor macha allah dafa mel ne xale yu xasida bi ñu fi doon jàng nii muy fa tabat yadaakum ah tabaarakallaahu jazaakumullaahu xeyran di ñaanal xale yi rek yàlla leen yàlla def ay mag def leen ay mag yu am ñam mais ni que ne dañuy wax rek almin mazidi ndax am na leneen rek luñ ciy dolli mel ni que ne jotaay bi moom kulóore na boppam waaye xale yi nag dañoo duggoon ki nga xam ne moom moo binde xasiida bi moom lañ tuddee daara ji muy sëriñ Mansour si ibnu sëriñ Babacar si bu nu waxee kan mooy sëriñ Mansour si rek bu nu waxoon ne moom mooy ki nga xam ne moom mooy njabootu Seydi Hadji Malick rek doy na parce que Cheikh Sokhna Saad bu moo waxoon ne madaarisu fil ilmi xayru madaarisin wa awraadu fi zikri ma misloo wérdun wala sax ñu ne kan ñu ne njabootu sëñ Babacar si bi nga xamne mam Cheikh bi mi tag sëñ Seydi haji malik ara malikan fi sultatin min jalalihi wa min ajdi atastaqarrat bi halihi bi ñewé ba ci biir bam nañ leen ki ma leen di wax de moy sama mam هذا هو جدي قام بالحق بعده ابي وابي اولى بكل bi kulli xisaalin mu ne واخ دي موي سما مام de mooy مالك وايي غناو موم سيغ بابكار تي لوما sëñ واختي Seydi Hadji Malick rek lu ko gën a piir moo sëñ Babacar yi sëñ Maam Soor moomu nag defoon xasida bii di fatabat yadaakum parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man raa minkum munkaran fa yuqayyiru bi yadihi ila axiri képp koo xam ne gis nga loo xam ne lu jaaduwul la te nga di ab jullit soo ko mënee dindi dindi ko soo ko mënul dindi waxal soo ko mënul wax métti ko ci xol sëñ Mansour nag amoon ay jamono yoo xam ne dafa am ñu jugoon doon caricature yonent bi sallallahu alayhi wa mu taxaw nag di défendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xam ne moom la ko ñu baax ñëpp doon défendre mu ne fa tabbat yadaakum ayu al usbatu allati tusiu bi rasmil badri siril bariyati mu ne fa tabbat perte na yadaakum seeni loxo loxoy kan mooy ñi nga xam ne ñoo jóg di jéem a caricature yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag fasullat yadaakum seen loxo yi paralise na parce que ku mel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom la Seydi Aziz Malik waxoon ne law lam yaluq fil fadail kawni talatuhu tabqal bariyatu fi zalma iyallahu moom mooy lampe projecteur bi nga xam ne su feeñu toon si jamono mbindeef yi danañu dox cig réer ba bu ñu wéy seen borom mu ne leen nag wallaahi da ngeen yàqal seen bopp rek seen dënn mooy xat rek da ngay ni wax ba sonn rek waaye bi sallallahu alayhi wa sallam moom kenn mënul ci moom dara mu ne leen fa amalukum xaabat wa daat ju uddukumu li ngeen mébét sànku na waaye tamit seen effort bi ngeen def tamit amul njariñ waaye nag wa istum ayatal mu'dadina bi asrati da ngeen di dund rek seen xol di naqari rek ngeen dëkk di tooñ rek ba dee pert yàlla mbugal leen muy wax ci biir banaan wa antum musiuuna bihi wa bi diinihi yéen daal yéen ngi ñaawal ki nga xam ne yàlla moo ne ko woon inna kafay naakal in te sëñ Moustapha jàngal ñu ko ci gàmmu gi passé rek te mooy yàqkat yi bàyyi leen maag ñoom ki nga xam ne yàlla moo ko défendre ne ko war a faa naa lakk zik rek ngeen ne da ngeen koy bëgg def face da ngeen son seen bopp rek mu ne wa bi diini yi ak ay diineem yi ngeen xam ne moom ngeen jël bëgg koo yàq te moom diine ji ngeen xam ne yàlla moo waxoon ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan kon da ngeen di son seen bopp rek waaye mu leen ci moom dara moo tax mooy leen falaa niltum fawzan ala su'i niyati wallaahi du ngeen réussir ci li ngeen di def mu ne leen nag yéen daal yéen dëgër fit te jaraatum antum alay ibi rasmi yi yéen daal ngeen ne da ngeen ni caricature koo xam ne téere yi sax nettali nan ne ci waqaaram ak xëybaam saxaaba yi sax mënu woon jàkkaarloo moom ngir xool ko ndax leeraayu kanam gu ko yàlla may moo tax mu ne leen nag ayu samu nuuran laa yu taaxu bi nadrati ki nga xam ne huwa jaw arul maknuuni wal sababu alladi falaw laa u maakaanal wu wujuud bi xelxat yi ki nga xam ne nag nekk teef yëpp source bi moom mooy yéen bi sallallahu alayhi wa te bu doon ak moom mindee fi du nekk mbokk yi xaside bi gudd na li mu ëmb ëpp na loolu waaye li ngi taxoon ñu indi rek sëñ Mansour dafa nekk koo xam ne kenn ku nekk xamoon na taxawaayam ba pare góor gi nag amoon cofeel ci moom ba yére bi mu sol ci suba sax sëñ Mansour si moom moo ko summil mu jël daara ji tuddee ko ko pour ñu wax rek ne hasard amul dooloo taxoon ñu indi xasida bii kon di ñaanal xale yi di wax mbokk yi kontaan na ñi fi teew ñëpp gis nañ ñëpp ku lim da ngay juum di sant nag gannaaw bi Mor santé ñi nga xam ne daanaka tudd na ñëpp ñi sant ñi xam ne ñooy oustaz yi àndoon ak Ibrahima Dia oustaz Modou Dia ku lim oustaz Ali Thian Ngeebaan Mbabba ku lim da ngay juum wallahi ku lim da ngay juum waaye kontaan nan kontaan goo xam ne wallahi santu xool la ñuy sant gis nañ ñëpp ñi ngi ñaanal ñëpp di kontaan lool fu kontaan yam di wax ne am na sax leneen lu des waaye wax dëgg yàlla dañ koy yemale fii rek parce que nag lu ëpp tuur lu ëpp tuur te mbokk yi toogaay bi maanaam sonn nan waaye sonnun parce que cofeel moo tax ñu toog fii di berlaat cant oustaz Bada nee na mi ngi berlaat cant waa daairatu musatin wal musarsidaat parce que wax dëgg yàlla ku gis organisation bi nee na nag di nga commencé ci kilifa ga muy Seydi Mouhamadil Moustapha si hafizahullah wa ayadahu wa raahu parce que nag dañuy wax ne nag à l'épreuve on connaît l'artisan inna zawahira unwanul bawatin ba pare tamit nag dañ ne zairu taalib baatinu sayqi yi taalibi bu ne nam mel ngay xool xam kii ka kay lif moom mooy kan kon mbokk yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ñëpp ak di jéggulu ci kàddu yu ñu wax naa leen ci suba ne leen kàddu yi may yëkkati yëkkamtiwu ma ko ndax damaa xam yëkkamtiwu ma ko ndax damaa am dayo bi mais dama koo yëkkati dañ koo jël teg ko sama kaw ne ma waxal ba pare na ma boo demee waxeel nii ngeen xam ne lu ci jub ñi ma doon waxloo ne ma waxeel nii ñoom ñoo jubal lu ci dëng ngeen xam ne sama gàtti àlli woo la ak sama matadi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon xam naa oustaz ñu jox la nga def ñaan ni yeewee ku ba beneen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu innama al umuru bi xawaatimiha li gën a neex ci jotaay bi mooy point de retrouvaille bi am fii tey Issa lu jafe la point de retrouvaille moo fi am ndax oustaz Jam yi ngeen di gërëm yéen a bokk bay tey njaboot gi moo fi daje te aljamaatu rahma hasard dajalewu leen ñi war a bokk rekk daje ci turu móotu laay waxe sama nijaay wane na ne ak oyof moo gën lépp fab lépp bàyyi ko ci seen kaw yéen it wone ngeen ne kilifa rekk am solo ngeen jiital seen wajur teg ko ci wane ne toppe rekk moo am solo ñi fi toogoon ñëpp mooy ñi Cerno yoroon ca daara ja sàmba Diop a ngi toog njaayu mi suma juumut moom lañ ko joxoon baaba mi ngi toogoon fii seen bay Seex Ñang toog fii tey njaboot gee daje fii njabootu Alaaji Tiijaan Caan di woon seen mag ànd ak baaba astu gànkal cerno Mamoun Ndiaye say njaboot gi day ngi nii kenn mënu koo tas da ngeen di ànd rek nekk benn situation wane na ko tey waa ngeet a ngi nii situation wane na yéen a bokk situation wane na mun leen a tàqali ko ñun seeni jarbaat lañ donte ne ñoo leen mag donte ne ëppuñ leen expérience waaye ñoo leen ëpp luñ dox sa bay Ibra Diop laa toogal tey di ko fii wane na daaray démb yi amoon fii ci melax na déewut mbir mi boo jeexaatee rek mu ñëw muy daaray Mor Awa daaray Alaaji Baaba Sàll daaray daaray ba ci école tafsir mbustaan lépp wane na boppam kon yal na yàlla def tawfiix yal na yàlla barke lépp te ngeen góorlu àdduna ku dara warut amut ku warloo wut dara mu am te ku jeexaat da for te booy jeexaat bul taamu sa tool bay demal fu ne yàlla na leen yàlla defal sutura yàlla na yàlla def sutura ci dëkk bii nii gone yi toog jàng fi alquran te yonent bi ne aftulu zikr tilaawatul quran wane na fii boppam tey kon yàlla na yàlla def sutura wax ji mënuñ cee sori mbay pend waxoon na lépp tey ci suba seen papa mooy papaam waaye différence d'âge bi bariwul ñoo doon seen i dong ca daaray Mor Awa wax naa leen misaal ne leen am sa kilifa bésab tabaski nga xëy dem tool ndax waxu la dara loolu Mor Galataal ak fi defoon loolu lépp dañ ko doon nettali tey pour ngeen xam ne kilifa baax na ci jataay ndax lii kilifteef rek moo ko waral ñi ngi sant ñi nga xam ne def nañ ci seen loxo ak ñi nga xam ne buñ ko yëgoon def ci lépp lii waaye préparation bi moo gàtt kon booyi mbooloo mi ngeen def fatiha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 صاحب القبضة الأصلي والبهجة السني والرتبة العالية من اندرج النبينا تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه عدد ما قلقت ورزقت وأمت وحيت إلى من تبعث اللهم انت الله ملك الحق المبين قديم متعذب العظمة الكبرى مفر القاهر القيم قادم جبار قهر الذي لا اله الا انت يا ربنا ويا سيدنا الله يا رسول الله نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علينا وسلام على أمواتنا وسلام على أهل القرآن وسلام على أهل هذا القرآن والحمد لله رب العالمين